نون والقلم وما يسطرون mbokk julli ñu leen nuyu te leen siyaare te eh, leen ndokkeel ci teewaay bi ñu képp ku fi teew rek moo leen nuyu di leen ndokkeel seen yitte moom leer na naññi ndax mooy alxuraan rek alxuraan moom mooy ndey lépp lu baax mu jël leen a bàyyi seen ñëw teew fii gungañ ci liggéey bi kon nag ñoo ngi sant képp ku fi teew rek ma lay sant turu C3C ci turu El Hadj Serigne Seck ah tàmbalee sant gi nag moom ci suñ kilifa muy sëñ Thierno Sa Massa. xam naa ne moom sant ko dana danañu jafe ñun ñëpp ñun ñu ànd ñëpp délégation bu ñu kenn doon sant itam dana des ndax euh, ni ko sëñ Xaadim waxee ci tàmbali bi rek bañ tàmbalee rek la ànd ak ñun tàmbali bi fu ñu toll rek muy gën a dëgër ci moom loolu li koy firndeel mooy tey jii ñun ñi bi ñu ñëwee bëkki démb ba àllarba ñu juddu àllarba lañ ñëw ba ba tey jii dara waruñu du fuñ dëkk du lu ñuy naan du lu ñuy lekk lépp mu ne moo koy yoon waxoo kon xam nañ ne ku nu may ofit la ku nu gën a sawar ci tawarloo ci liggéey bi doon xam nañ ne liñ jàpp moom man naa jàpp ndax biñ ñuy wax dana yéen ñeme naa leen lu ko waral mooy alxuraan kon nag moom amuñu fayam xam ak can tamit tam xam lot lot nañ ci xam ne ñun ñëpp rek ñu ñaanal la ko yàlla gën a guddal aw fanam ba nii muy taxawoo alxuraan yàlla taxawoo ko noonu moom itam mu yàgg fi lool te ànd ku wér ndax kat ñun li ñu am fii liggéey bi yàgg na waaye mën naa ne amuñu buñ ko ci fenn fu ñu dem ci liggéey bi ku la dalal li war ci yëpp mën da ko defal nga dem ci bisu liggéey bi ñu jox la fu toll fu toll la fii muy dig see jox la fu toll fii ne lay laaj ñu ci dara kon nag xam nañu waa Matam moom alxuraan rek mooy leen yoon xam nañ jar na saa masa wàll nañ ci jukko ci ci ci ci jukkoom mu yor ngir bëgg alxuraan kon nag ñoo ngi koy sant sant yam ci turu alaaji sëriñ ndax moom itam xam na ko ci ak dégg moo tax bi ñu nee bés bi rek mooy nañ ko yëg ndax wóor na ne xam na ne yeewoo na ko ndax ab tàmbaleem ba fi ñu toll rek lim lim tox lim tox ci yaasin bi ñu xam dë dëru ko ci umput kon nag cant gi daal moom xam naa ne lot naa ci xol yi yëpp sedd nañ képp ku ñëw fii rek tey te mbindum alxuraan yëkkati la muy àllarba ba tey jii sa xol sedd na sedd goo xam ne si eh, yaakaar naa ne mosu ndax toppatoo gu ñu toppatoo ak taxaw gu ñu topp taxaw mu wér na alxuraan rek la taxaw xam nañ ñu ci alxuraan rek moo ñu yëkkati ñoo ngi koy sant yéen ñu ko fi teewal ci turu. Eh, sëñ Thierno Mouhamadou Baba mi moom mooy waajuram mu doyloo ko yebal ko fi ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen yóbbal ak cat gu rëy rëy ci moom xam ne daal moom sunu sant moom jugo yu sëriñ bi lot nañ ci bàyyi nañ ko ak alxuraan yaakaar naa moom ko bàyyi alxuraan ah dana xam ne bàyyi nañ ko waaye yàlla na ko yàlla sàmm yaay rasulillah Euh, bu ñu jógee ci sëñ Thierno Samba Seye tam ñu ngi sant képp ku fi toog tey kilifa diine goo xam si mooy tam sëñ Thierno Samba Seye dalaa boole ci ñim na na ngeen fi teew si ñu ngi sant képp ku xam ne alxuraan daa ñoo nga teew fi euh, ñoo ngi sant itam euh, gouverneur ak iyaa bu maatam moom fi teewal gouverneur teewal fi waa iyaa bi muy Abdoul Aziz Ba teewaayam ak kàddoom yu rafet dafa am ay yitte yu xam yu jàmp tax bi mu noppee mu dem waaye moom tam ñu ngi koy sant bu baax ci kàdd bi rafet yi ak yitte woo gi ak teewaa gi mu fi teewal ñooñu mu fi teewal te teewaay bi mat sëkk ñoo koy sant ci turu sëriñ ci turu C3S ñu ngi ci toftal euh, njiitul kër Sëriñ Tuubaa ne Matam di turu sëriñ Aliou Bey ak ñi mu àndal ñëpp seenu taxawaay ci liggéey bii xam nañ ne moom Sëriñ Tuubaa mi ñu tuddoo xam nañ ne li mu bëgg xam nañ ñoom seen bëgg-bëgg la na ñoom ñu ngi ci ndigal ndax Sëriñ la bëggoon ñoo dem bi ñu ñëwee lépp lu aju ci bisu tey bii lépp ñoo koy yanu nee nañ togg li aju togg moom loolu moom nañu ñu ko bàyyi ñoom itam kon xam nañ ne moom ki ñuy wuyoo muy seen jëwriñ xam nañ bëgg-bëggam te ña nga cay te ña nga cay ñoo leen sant bu baax a baax a baax a baax di ci teg itam euh, njiitu ko sëñ Tuubaa gi ci nekk Rosso gi ci sëñ Jili Mbàkke moom itam ñoo ngi koy sant ndax kii bi mujj fa lañ defee woon ñu taxaw ca bu baax tey jii bi ñu bi ñu ko defee na kon moom itam ñoo ngi koy yóbbante ak ab nuyoo ji bépp jullit bu fa nekk ak bépp taalibe bu fi nekk ci turu C3S ñu ngi nuyu nag directeur central bi muy monsieur Diallo moom li mu def daal xam naa ne euh, li ma wax rek gisaguñ gisaguñ ko daal ñun bi ñu amee liggéey bi léegi ñëw mu amul nag waaye gis ko moom teel yi ko teel ci moom la njëkk moom itam nag jox la lu toll nii nga mën cee laajub xaalis nee nañ joxe nangam te lu ñu laaj ñun dañu koy fay ndax alxuraan moom jaral jaral nañu. lu ñu laaj ci liñ ci fi ñu koy defee ñu def ñu fay ko ndax bu dee Dakar ay centre lañu jël di ca fay la ñuy fay waaye moom bi ñu ñëwee fi wax ko mu ne benn dërëm bu ko ci laaj sees yéeg yëpp dama koy joxe xool ci kilifa muy Thierno Samba Samba mu xam ne kilifa la mu xam li mu def mu xam ne moom muy itam nag war naa jàpp ci liggéey bi ngir ngir kilifa googu tax mu jàpp jàpp woo xam ne si mooy itam ñun ñëpp bi ñu ñëwee daf ñoo jaaxal te bett na waaye moom lu baax lu baax moom ku baax def lu baax wut la bett eh, yàlla na yàlla dëgëral yàlla na yàlla barkeel la taxawu la ba bu ñuy ñëwaat fii fekk la nga yor lu rëy rëy lool loo bëgg def ci lu baax ci alxuraan danga ko ci ma def yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal bi jaay rasulullah eh, ñu ngi ñu ngi ba tey ñoo ngi eh, jàlle sant gi ci Cerno Sidi te wurusoo gi moom at mu ne bi ñu liggéey bi léegi fi njabal at bu ñoom ñoo ak sëñ Mamoun Fall moom ñoom ñu ànd liggéey bi dafa ko wuru soo gi bi ñu ñëwee fii itam teewaat na fi yow itam ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax ñoo ngi sant commandant gendarmerie bu maatam ci taxawaay bi mu taxawaay ci liggéey bi taxaw sécurité bi yaatal na dalal na ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax yàlla na yàlla barkeel barkeel ko te barkeel ab liggéeyam bi jaay rasulullah ba gën a kawe yàlla na ko yàlla yóbbu daraja alxuraan ñoo ngi sant sëñ Madiagne Diagne ci turu commerçant yi maak bi ndax kat man commerçant yi man fii def na fii def naa fi ab diir def naa fi ab diir muy 82 83 84 ci marché bi nekk fekk moom moom moom kon nag Madiagne ñu ngi la yónnee ci bépp commerçant bu fi nekk rek sunu cant euh, ci moom hmm. jàpp naa ne kon li ci des rek mooy euh, sant ñi nga xam si ñoom ñoo doon taxaw liggéey bi bu dee ñun ñi an jóge Dakar njur seen xaadim ñoom ñoom ñëpp ñu ngi sant xanaa nag lii moom régional la waa régional ñoo ko moom xanaa di di di xanaa di ñëw ci di ñëw ci sëñ Moustapha Mouhamad Wan li nga xamante si njiitu lu national yi ca la bokk te jóge Tamba jël na fi kàddu ñoo ngi koy sant bu baax ci seeni taxawaay ba liggéey bi mën na ñëw fii mu ñëw tey di teg sëñ Abib Dramé sa Sédhiou di teg sëñ Amath Tidiane Sall ci Matam kooku moom moo sëñ Ousmane Dia moom damaa yaakaar ñoom rek moom damay damay damay damay laaf ci Thierno Samba sax rek <laughs> ndax lim doon def lépp seen loxo la ko teg Amadou Tidiane Sall mu di ko dox ñu ne Dakar ñu jokkoo ba lépp sotti nga xam ne seen Thierno fi ñun ñii sax gisuñu waaye gis nga li nga jëf ci ñoom bañ teewee rek la ne moom ñoom gaa ñu ngi fi rek bu ngeen ñëwee da fekk lépp jag ci taxawaayu. Euh, Cheikh Ahmed Tidiane Sall ak euh, Ousmane bi si mooy coordinateur régional bi ci yaatal bi nu orphan ci maatam mook Cheikh Ahmed Tidiane Sall ñëw leen sant bu baax a baax a baax a baax euh, di ca teg Cheikh Ibrahima Fall moom bu fa ñëwut moom moo jiite Ziguinchor ci yaatal bi alxuraan waaye ko fi teewal mooy Abdoulaye Cissé waaw ñu ngi leen sant bu baax te leen masawu coono yi ndax xam nañu diggante yi régions yi soree nañu waaye alxuraan jaral na leen di sant sëñ Ahmadou Arouna sil moom itam moo nekk Kolda moom itam xadd xadd na ba teewul waaye liggéey bi lépp da ko àndoon ak ñoom ak seen Omar Minte Kédougou moom it téewul waaye cant gi daal sëñ Mahod Mahod sëñ Ahmadou Moussa wan nga la koy jox nga teel ko si nga teel ko seen loxo euh, nit lañ cey dool yi nag di sant euh, ndey daara yi ñu moom danga war a wax ba noppi nag doog a jàkkaarloo ñoom sant leen ndax daara moom bu taxawee ndey ndey ko taxawal bu daara amul ndey ndax bàyyi daara moom du jël yóbbu xale bi ci daara bi waaye nag koy koo ko mooy ndey ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm te xam ne alxuraan du cëgg ñi koy jàngale rek moo ca nekk waaye kim ñor ba mën ko jox ab temps ay yitte mën koo jox kooka mooy ko alxuraan ñor te yéen ñi ci ngeen bokk ak yi taxaw gone yi ñu leen sant sant bu wér a wér a wér a xam ne ci C3S leen koy sant yàlla na yàlla taxawu ni ngeen taxawoo daara bi jaay rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam ndax ñoo ngi yemale kàddu yi foofu rek kàddu yi cant yi xaj na tudd ñëpp du yomb waaye daal xol bu sedd rek kuñ tudd daal xamal ne yaa ngaa ne ci biir xol bi rek xol bi sedd ba ëpp ba euh, muur lépp rek waaye cant gi moom amuñ fi ñu koy yemale. woon moo di moom moo bindoon lii amoon am am na euh, tubaab waaye am amal moom ñu la bëggoon si Thierno Sall Thierno Sall bu mu nen mën a fay waaye am na yoo xam moom ak fay ba tax bii ñëw nañ ba ay huit cent et quelques téere yoo xamante ni ñoo bëgg moom ñu joxoon ñu ko li mu gën a bëgg des day daal di jëm ci ñi yoroon liggéey bi ak ñi doon liggéey muy candidat yi ak ñi doon jiite woon ak lenn ci kilifa yi la téere moom li ñu bëgg mu saako fi ba gone yi man koo yore di ko mën ñëpp dañ ko roye nit ñi bi ñuy bind ba bind kàddu dañoo roye kenn bind na nga roye yóbbu téere bi moom ñëpp mooy li nga doon wax sama bas la ñu fexe ba mu saabu bi ñëpp am ci te ngeen ñaan ñu tam ñu dem ba am kayit boo xam ne si waaw ñu defal ma daal kayit boo xam boo xam ne si ku bëgg a jàll rek mën a jàll ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun